ETDR établissement Touba Darou Rahman mbokk yi kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu ko ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yëg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou Rahman di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yëpp bu fekkee da nga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen wooñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkani yi kër yu noflaay yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su ne fi leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy làmb lépp luy actualité bokk ci réew rek dañ koy jëli jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel saa su ne di wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi ngeen di mën di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel su ko defee ngeen di ko mën a am saa su tey nag maa ngi Pikine fi nga xamante ne bi mooy euh, kër Dabaax di jaay ci wàllum électronique ci wàllum euh, matériel yi nga xamante ne bii yu mucc ayib la seet si sunu xarit sunu doomu ndey sunu grand frère muy Pape Sarr borom Pikine ku ko xam-xam ko euh, taxawaayam ci biir Pikine waaye rôle am ci biir Pikine fa seen waxtaan ak moom dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu mën a dugg ci waxtaan bi Pape maa ngi nuyu baax a di la siyaar. waaw Thier maa nuyu sa site bi di nuyu sa caméraman bi Khadim Anta di nuyu Kanji suma frère di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm toujours moom laay wax. waaw parce que man lu ma nekk bu dul man sax yeneen yàggul dara temps laa indi ordonnance koo xamante ne nit ku warul la kànji saafara ko voilà may wax nit ñi nañu jàng ci moom voilà te man ñëpp xam nañu loolu ci man képp ku laal kànji man ngay laal parce que wax dëgg yàlla aajo bu ma ñëw du sama yëfu bopp mais képp ku ma fa ñëw indi ko mu fajal ko ba barki démb ay samay jigéenu Gambien ñoo fa ñëw nekkoon ay amoon ay problème mu dugal ci loxoom maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ci lii mu dugg nii maa ngi wax Sénégal yëpp ñëw jàppale ko di ko wax Ousmane Cissé xam nga mu jéem a aussi mu jéem a liggéey ak Kandji parce que corroboré ak moom liggéey ak moom te moom aussi ak Kandji ñoo ñoo même ñoo bokk même liggéey moom mu ngi def liggéey boobu biir Atlanta di ko def ci États-Unis bi yëpp. kër yu fa nek genn wala kër yëpp moko tabax ma ngi lay ñaan yow aussi nga jappalé suma frère bobu nga ngeen liggéey yeen ñaar ma ngi wax sénégal yëpp képp ku am sa bâtiment boy tabax jaarale ko ci kanji boko ñëwé do ko rëccu ma ngi koy gërëm defaluma dara waaw man pap sar la wax ni man xam nga damay tuddu ay nit ci télé sax damay tok 1 an duma leen gis billahi wallahi wa tallahi damay tuddu nit wala leneen ak leneen dama gis limuy def ma gis néew di doole yi muy taxaw di leen jàppale di wax di gis di muy def ci làmb maa ngi wax daal na ko ñëpp jàppale te nit ku baax la nit ku baax la billaahi maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm Moustapha Kandji ak euh, frère am kii Abdou Kandji Abdou Kandji mention spéciale moom gis naa nu mu téyee Boy Niang bi dara dul dara billaahi wal kitaabi dafa dafa téye Boy Niang bi muy nekk zéro mu téye ko mu téye ko yor ko këram foofu fajaa ba tey lii am kon ñun loolu dañ ko siy gërëm bu baax a baax a baax booy xool estafu euh, booy ñaa Abdou Kandji la Kandji ak Tafa mu noo ci wax keneen billaahi wallaahi tallaahi avance bu ñëwee kooku noonu la koy jox man loolu xam naa si dara billaahi wallaahi tallaahi tey loolu moo tax tey Tafa booy ñaa egg fii mu egg kon suñu gisee booy ñaa egg fii kon ñun dañ leen di gërëm ñoom waaw di leen gërëm di gërëm tamit waaw di waaw nday jaa jàpp si mbagg ba kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm tamit staffu Boy Niang staffu Eumeu Sène ak Ama Baldé di nuyu waa Pikine di nuyu tey bërëb bii ma nekk tey waaw muy Kër baax di gërëm frère gauche droite ak frère am ñu fi nekk yëpp parce que jàmbaar la mu ngi liggéey ful du bu bees tàq la ma jox. mu ngi nii waaw. man gauche droite dama koy dégg mais musuma door gauche droite. non mu ngi nii mu ngi ci biir. waaw waaw mu ngi ci biir. waaw waaw gauche droite doomu ndeyu alaaji alaaji mbay doomu ndeyu Ama Balde di doomu pikin maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di wax waa Pikine nañu dugg fii ci biir boutique bi ay fuldu yu baax a ngi fi ay iPhone bu baax fi daf ma dindiloo sama techno bi ne ma fuldu 5 bii def ci sa piis billaahi wallaahi maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa pikin di nuyu waa Hong Kong lii dama bëgg nga génneel ma ko ay doomu Gambien lañ yoo xamante ne tey sama làmb ji bu eggee fii ñoom la tey xam nga dama jë ah, ah, nu mu tudd Fadel dafa duna woon gisoon benn xaalis bu ma génnee woon ñooñu la ku mel ni Ibrahima Thiam Ibrahima caam mu ngi ba Hong Kong di doomu gàmbi ak Mbaye Diop sa xarit suma xarit borom 116 ku ma taxaw la ku ma jàppale la xam nga Thierno Ba moom it mu ngi Hong Kong ñoom ñëpp ñu may jàppale lañu di nuyu waa Pikine yëpp. am na solo mais bu ñu lay waxee Pikine dañuy wax Pape Sarr ci biir Pikine. Pape Sarr sa taxawaay ci biir Pikine kenn dootu ko natable kenn dootu ko présenté kenn tey ndax nga gisee euh, Pikine fi mu toll ci biir làmb ci moment bii boo Niang jël la avance Ama Baldé jël la avance Eumeu Sène mi ngi préparé noo gisee Pikine moment bi waa comme ni ñu doon préparé rek ñun ñëpp ñu boolandoo entraîné ndoo comme équipe yi instant nii soo xoolee ah écurie Bathie Seras ak écurie Ama Baldé ñoo war daje benn match football ma écrit yëpp a ngi daje fi mu toll nii Pikine ni ñu dajalee di fubalee noonu muy affaire boo xamante ne bu ñu rafetlu la ñun ñëpp maa ngi koy wax Ama Balde di ko wax am Eumeu Sène di ko wax Boy ñaa ñoom ku si nekk yor nga sa numéro morom du Pape Sarr maa leen di wax wootante leen ngeen entraîné woo leen ñoom ñëpp ñu dajaloo ñoom ñëpp écrit yi booy tamit ku mel ni ñoom Pokola Jacob ñoom ñëpp ñuy bokkandoo entraînement ndam rek lañ fiy jëlee. kese te loolu combat yooyu ñu ngi koy pare bu baax a baax a baax a baax parce que ñu ñuy dajal tamit ñun suñuy frère lañu soo xoolee Franc mu ngi dajak Ama Baldé te Franc suñu frère la làmb la rek yenn saa yi nag mu génn des sorties boo xamante ne ñun duñ si duñ ko waaw duñ si gis suñu bopp duñ si rafetlu loolu kese la du dara dañu nekk ay Pikinois yoo xamante ne tey boo génnee di dal suñu kaw ñun dañuy génne riposter loolu mais ñun ñoom ñëpp suñuy frère lañu ñoom ñëpp tey Pakola mu ngi bëre talfa te ñëpp xam nañ sama diggante ak Ousseynou Laay ak Goro Sock du dëgg moo lay won ni ñun ñëpp ay famille lañu xam nga nañu rafetal affaire yi ñu xam ne tey làmb ji ñun kese ñoo ko mën a defar yenn yii di fi xew yëpp luy yàq làmb la luy taasal làmb la yoo xamante ne di génnee ay photo nit naan diw moo def lii dew moo def lii te loolu yëpp dara amu si loolu du luy defar làmb nañu xool luy defar làmb ñu xool comme kañ ji ni muy def ñu koy def luy defar làmb rek lay def xam nga maa ngi gërëm ñëpp loolu laa loolu laa loolu mun a wax ci pikin xam nga di wax waa pikin yëpp nañu booloo nekk benn di entraîner doo di di jàpp xam nga comme ni may def nii léegi bàcc seeraas fekk ma fii ma ànd ak moom Batora mu ngi si entrement yu métti ñuy waajal combat am pour promoteur yi gaaw waaw loolu laay wax ci Pikine daal. mais ah. gars yi nag nañ nag Pikine nag ren moom lañ am ci adversaire combat yi xaw na saf saapu de. non bëri na bëri na parce soo xoolee boo yëpp am nañu combat. boo yëpp te ay combat capital la ñu am képp képp ku ci jàpp ni sa combat daa yomb yaa ngi nax sa bopp muy Ama muy Boy Niang muy euh, Sakop ñoom ñëpp ay combat capital la ñu am loolu nag li leen di may pour ñu gañe ko ñu jóg liggéey te ñoom ñu ngi koy def. gars yi dañ ne nag euh, Ama Baldé euh, wala boog Franc dafa am défi bu nga xam ne da ko defoon biir Pikine am lu fi def. duggaat biir Pikine am lu mu bëgg a jëli mu jël Ama Baldé combat bi tamit est-ce que du xaw a diis tuuti ci waa Pikine surtout ci Ama Baldé. non du diis su ñun parce que xam nañu jàmbaar yu ñu àndal xam nañu Ama Baldé di foowee bés ama Ama Baldé bu wër rek dara jatu ko nekk ci nekk ci entraînement am ñun tiitaluñ ko kenn waaw làmb la nag làmb la te Franc soo xoolee néewul doole te am na ginnaaw xam nga mën na bëree du dëgg dañuy wax tamit qualité yoo xamante ne mu ngi si moom. waaw du teewul nag du ma wax ak moom nag waxoon na ñuy waxalan ñuy jokkalante kàddu ba mu def benn sorti erreur boo xamante ne man waruma woon tudd mu tudd ma ci problème boo xam ne sama yoon nekku si yaa ngi may dégg est xam nga te man ak moom ak Alain dañu doon wax appel appel whatsapp à trois dégg nga bu dul loolu sax mu xool ne tey Alain bi muy dem di fekk ji France man ak moom lan la ñu sekk dégg bët boobu muy xoolee Alain na ma ko xoole te Alain man grand frère am laa comme nee na Alain magam la man Alain grand frère am laa bi may ànd ak Alain 96 97 cité Elisabeth Diouf moom xamul kan mooy Alain kon na rafetal affaire yi nañu rafetal affaire yi ñu xam ne ñun ñoom ñëpp suñuy suñuy suñuy njaboot lañu su may rakk lañu loolu laa mun a wax si ñoom munu ma si kii quoi parce que tamit Franc moom it dafa am ay frère ak ay ñu koy jàppale ñoo xam ne ku mel ni si laa mu ngi ba ministère xam nga Daouda Mbow soo mayor a kam laa sol nii muy Moustapha Mbow international kuy jàppale Franc la kon bëggatuma di wax ci moom yenn kàddu yi daal waaw à cause nag ñooñu noonu waaw ñooñu wax dëgg yàlla waaw ma koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla defal jàmm ba jour si ama duma ko daan ko. booy ñag ñibbi seegul. non ñibbi mu ngi si ñibbi mu ngi si combat bi. tamit jël na xale bu bëri. jël jël na xale bu doy waar bu soobee yàlla ñu ngi ci ñu ngi ci yaakaar ndam waaw. ñu ngi si yaakaar ndam le premier bu soobee yàlla. ah Reug Reug moo dàq a bëre moo ëpp doole. waaw ba boobu. waaw ba boobu. nee na loxoy acier la bu jàppee du bàyyi. ñu ceer nañu bàyyi ba boobu rek ñu bàyyi ba boobu waaw. waaw waaw. daa mel ne combat am nag dañ ci def patek organiser quoi wax ji wul non parce que boo ñaa ñëwagul dama dem liggéey ji dañu xaar bu mu ñew su ñewé bañ def sen face à face ba pare après nak xam nga pétale commencer tak waaw pétale yi boobu lay commencer comme d'habitude déedéet dara du ci changer pétale day tak rek hmm. waaw <laughs> ak boy ñang si digënté ak Ama ak Franc waaw mais nak li ma ñaari xalé yi gëna tecc lam ngeen am non kon kon kon noy def Ama ak Boy Niang waaw Ama Baldé moo daan Tapha booy Boy moo daan Balla Gaye daan Sa Thiès. est-ce loolu mi ngi nekkul ci xale yooyu. ñu mu ngi si ñoom. mu si ñoom duñu leen du leen duñu leen sous-estimer ci dara parce que ay ndaanaan lañ fi daan. Mm. waaw ay ndaanaan lañ fi daan duñu leen sous-estimer ci dara. voilà ñun daal en tout cas ñu ngi suñuy rak di leen won yoon bi nii la ak nii pour nii la ñu war a amee ndam mm. nañ ko def suñ ko defee am ndam mooy ñu ngi entraîné loolu laa leen di ñaax. Uh-huh. waaw ba tey benn xale ci biir Pikine muy Pokola Baldé dafa jël avance diggante mag euh, Talfa gémër bi poko la lamb di séntu ci moom mu egg ci kaw nekk roi des arènes am na jotaay bu nga xam te ne bi yaa koy dégg keroog naka nga ko euh, dundee en tant que nga xam te ne grand frère la ci euh, Pokola yaa ko taxaw ci premier combat ba tey fi mu toll ci biir lamb. waaw gis nga bi muy bi boobu si combat deuxième komba troisième komba gis nga fi may introsé nii fii laa ko indi moom Pokola fii laa ko indi ci banque bee la Xaadim Diagne génnee lu mu koy jox mu nga ànd ak saada bi génn barki démb di wax saada saadal saada laay génn mu wax neena na ah, ñu koy jaxase ñu dem ci Kumba Balde di ko jaxase ak Kumba Balde waaw léegi nag moom moom dafa junju ne man damaa jot ak Badou njoon nii ak nii Badou Ndione dafa dem kër Eumeu seen di yàq sama der kooku à la Kumba Balde du cent franc bu ma defaral kum dama ne man duma ma dugg biir kër mbër dafa nettali ay waxu jàmbur Kumba Balde xam ne sama sortie bii may def nii mu may seetaan duma xool duma wax man luy tàqale ay nit bi Saada de ànd ak pokolaa man fekkewuma su fekkee mus naa dugg biir kër Fallaay du tudd turu Saada benn doom la ma yàlla dénk benn yàlla bu ma fekkee njëriñam balaa tey la tey balaa dimanche yàlla nañ ma ko tàgge kon boom saara mu ngi may tooñ waaw noo mu ngi may tooñ Kumba Balde na seetaan sortie bi mu dem woo saara ne ko ndax man mus naa net wax foofu ay waxu saara moom Kumba Balde moo def sortie ne saara bàyyil sama doom est-ce que Kumba Balde mus na génn ne Pape Sarr bàyyil sama doom ah kon moom Sada suy wax na wax lu mu wax xam man ak Landiang dañoo jote te jeex na nee na jote naa feeg Landiang jote ku fi jéggi yoon Pikine ma jote ak yow man bañu ma ku ma bañu ma jote mais képp ku fi jéggi yoon ci pikin ma jote ak yow dégg nga parce que samay rakk ñu may interdit ma ñoo ma envoyé vidéo Sada bi samay rakk mun nañ ko fekk foofu nokk ko ba mu duul. Dengar, nga mu naan ay bo sama tour yobou ma man dama na la yobou ya yow ya. man makoy sama bop soy wax da ngay wax lu la wóor man dégg nga man ñakuma xifuma ñaanuma mbeur talaluma loxo mbeur teguma beut ci xaalisu mbeur yow Saara moo ma indil Pokola fi bi ma indilee fii ma and ak ñom feñu ñu jënd reer bi ñu ñëw xar la Pokola ray ci mam xar xar xar la ko defal ci sac fi ci buntu bi buntu place bi moom Sada moo yenu xar bi yóbbu kër kër Fallaye Balde moom la Pokola defee regroupement Khadim jaañ génnee paquetu 100000 jox ko Khadim Diagne bi mooy fi may interroger nii. dégg nga ñu génn foofu ma yab ko si scooter bi ci lendemain bi ñu ànd ci ay autorité man loolu laa sekk ak Pokola mais Sada soo buggee loo sos nga dem xooli ko du dëgg tuddul gaa sama tur mais soo seetaanee sortie bi rek da ngay xam ne man mii lay waxal te mu ngi def erreur. man kër Fallaye Balde boobu du ma ñëw di fa du ma ñëwee li ma fa soxla laa fay def du ma ñëw su fa nit defee man moom bi mu defee bi man maa ko woon ne ko sa sorti bi nga def Sada da ma waroon a woo ma ne la nii ngay waxee ak nii génn naa tontu ko tontu ma ko damaa xam ni tey li li ma sëkk ak Pokola loolu la sëkk ak nit du nekk naa féq nit du nekk seytaane bëgguma door ci kaw pikin waay li ma def fii pikin seen baay sax du ko def. su bëggee nit ñi xam ko da koy dem xool lan laa def fii Pikine man li ma fi def laa lax seen baay laa lax billaay wal kitaabi du ko def seen baay billaay wal kitaabi naafiq baaxul jaxase baaxul Kumba Balde yaa ngi may seetaan bu fekkee mus naa toog ak yow moom damaa bëgg nga génn gaaw nga leeral lii moom Sada. bu nekkee Kumba Balde mus naa toog ak yow wala Pakola wala kenn koo xam ne bokk nañ deretu Falla ay Balde Pakola def benn affaire ma ne ko diw ak diw ak diw ak diw di yàq diggante noonu jamais man dama ne la problème mu Pakola bi dama ne man sit yi laa siy wax parce que yéen yéen a doon sonn sama laam ETDR beneen site boo xamante ne yaa ngi ma soxla yaa ma soxla pour wax di ma wax ci affaire u Pikine da ma may fay ma wax parce que ma am événement gisuma leen gisuma leen sama làmb sit bu bëgg nag nga wax Pape Sarr bëgg wax da am directeur mu lay fay weer bu dee wool sa directeur mu teg ci taabal bi ma wax ci Pikine bu dul loolu ngeen dem dëkk ji Pikine Dakar bi nga xamante ne moom laa jox lengee bi du dëgg est-ce mais dama ne la dégg naa mu naan ay Pape Sarr wax ci sit man bi may wax ci sit dafa juddu man bi ma may indi 2STV yi euh, Baboy Giri Bordeaux moom ana Sada dama ne la waxuma sonnul ci Pakola de daf ko sonn ci Pakola la. ku ko doon jàppale la mais naa fekk baaxul naa fekk baaxul dina xam ni man mii la ko digaaleel man Pape Sarr man damaa jote woon ak la njang soo gisee ma jote ak lañan ci affaire u point de presse u la loolu ñun ñaar la ñun ñaar la te ki képp ku ma joteel fii pikin da ngaa yoon soo jéggiwul yoon nit du ma dégg ak moom léegi-léegi la coupé ak Paate Balde sama sortie bii est-ce que wax na ma ci dara parce que xam na ni kii Pathé man moo teg sama loxo ci Pokola dégg nga waaw boobu mu ngi nekk ci ay ay ay ay tolof tolof moom Pathé dégg te bi ma ko joxee ba tey gis na avancement rek la gis ci ci ci Pokola ah dégg nga yow léegi nga toog ak Kumba di yàq deru nit avance su Pokola bu ñëwee yow doo si lekk tàngal doo si màcc tàngal loolu du pertement ah mag bu toll ni man dégg nga so buggee kula setan seetaan wala ngay out bës doko outé fi ci man doko outé ci pap sar man fi nga may fekk deng nga bu muy and ak Pokola fi la indi Pokola bo Pokola mu ngi préparer am sita la xawma kan xam nga am sita am sita bobu du tay deng nga bi may combat Pokola ak ki mom mu ngi Maroc Pokola ak ki da fe nek nan la def ba combat Pokola ak euh, ki combat mom mako taxawal maa dem waxaale ak euh, booy jàmm gën bi nu mu tudd déedéet booy jàmm gën bi bul laal man maa waxaale combat bi maa ko waxaaleel fuuta maa dem ba kër ñoom bul laal waxaale moom mu taxaw ma bërek mu bërek pokola dégg nga dégg man ma proposé fuuta daam sugeer bu parcelle bien combat yu bëri man ma si nek di ci sonu mais dama ne la waxuma sonul si Pokola waxuma lol de suma waxe lol rek ma ngi wax waxu nafiq parce que ko sonu si Pokola la mais seytaane baxul seytaane baxul lolou waxu seytaane la so taxawé si internet sax di wax diggante Pokola pap sar nit ñi nañu yau yow yow yow mi ban nit nga su tak ma ci Pokola dañu wax yow ban nit nga Pokola nak suñu sortie yi ñu def ni suñu sortie yi ma def si Pokola defuma ko pour xas ko dam koy def pour ñaax ko mu xam ne moom ñu koy wan ne du moom kese moo fi nekk mbër mbër bu nekk jaar na pikin ñun ay magam lañu ay papam lañu te dañoo sonn ci moom ñun neexul ñuy xool ci TikTok bi ñuy jël Pokola di ko taf di ko wax ay wax yu ñaaw. dégg nga soo gisee ñu génn nii di dal si di dal si kawam ak ñoom papeek yooyu noonu bañuñu Pokola dañ koy ñaax parce que dañoo xam ne deretu pikin bi lay représenté drapeau bi loolu kese la. mais est-ce que tey comme mu nekk xale làmb yaakaar ko est-ce que tey war na fréquenter ci yenn milliers yi. lii dootul amati lii moom Thierre lii moom dootul amati lii man sama bopp man Pape Sarr maay wax ci baatu Pikine ñu ngi koy jéggalu ñëpp. soo bi affaire amee dafa daw. non xam nga man dara leeruma dara leeruma si parce que man yoruma numéro am wootante wuñu fréquenté ko maa ngi woon Gàmbi ñëw yaa ngi may dégg gis ka fréquenté wu ma ko dara leeru ma si problème bi ngay ma gis nii ni ko nit ñi di ko seetaanee noonu laa ko seetaanee comprendre nga gis que dama ne la combat Pokola dama ne la Pokola daawul xëy journée te ñëwul sama néeg yaayam balaa bu avance ñëwee ci kër gi buñ koy wax combat rek ci man lay jubali kumba loolu nag laa bëgg ñoom ñu koy defaat. ah waaw si ñaari komba yëpp man gisuma ko. gisoo waaw yaayam ñu ngi gisante. waaw waaw si waxu combat. ay combat Pokola man yëgatuma ko te loolu tamit du loo xamante ne lu ma rafetlu la dañuy waxante dëgg rek du dëgg du lu ma rafetlu la du dëgg na ñëw waat ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon jàppale toog dem liggéey ji dégg nga ñun mënuñu bëgg démb Pokola tey ñu génn di ko xalab di ko bañ loolu mënul nekk ñun dañ ko xas nañ ko ba dugal suñu fii ba pare du dañ te su ma ko jàppee billaay wallaay tallaay ginnaaw yàlla du kenn Pathé Baldé la moom Pokola am na ay mbër yu fi nekk yu ko ëpp fuuf yoo xamante ne ñoom laa gën a jege te xoolal fi ma teg Pokola teguma leen fa teewul nag maa ngi leen di jàppale ñoom ñëpp ma koy wax mu gën a góorgóorlu mu jàppale yaayam jàppale famem chaque jour Pokola chaque jour Pokola bu demee xam nga ñi la waroon di jàppale sax boo amee combat dañu retiré wu. dégg nga may wax ni ko doon jàppale lépp lii erreur la woon rek xam nga loo xamante ne benn loo xamante ne la woon bu waroon jàll jàll na ma koy wax moom ci boppam laay wax lii bu mu ko dalati na toog ci géttam. mais tey loo dégg gars yi ne Pokola tamit euh, manqué na staff ndax tey mënul nekk ci buntu làmb gars yi di làmb di ko yaakaar nit ñi di ko baay xel mu toll ci biir xale toll ci ndaw ñu koy dégg ci yenn est ce que tey maman jël na combat warul woon génn Sénégal dem làqatu ñu lal ko pour mu entraîner pour mën a ñëwaat affronter adversaire muy euh, Talfa mais ñu koy dégg ci yeneen yi. non manqué staff bi dama dama koy bañ parce que Jacob ñoo bokk staff. Jacob ak Baba Kar Balde ño bokk esa Pokola ak Ama Balde ki yor Pokola mo yor Ama Balde kon ñak esaf bobu man duma ko nangu yaa ngi may dégg nga xam nga xeyna na yenn andando yi muy andal tay ñoo ko ñoo ñom ñoom lay top muy dugg ci yenn yi mais su melone comme ni mu melone kenn duko ko ci melni Pokola entraîné teud la daan def wax dëgg yalla lim man bu ma jëloon micro waxulu ñaaw suma timé du ma wax sa bët bi suuf a ngi ci parce que man du si gis sax xool ma su ma booy la su ma nit la su ma ku sonn ci moom la sonn ci moom laa dëgg li may wax daal mooy maa ngi koy dénk lii sénégalais yi ah man daal man maa ngi koy wax lii daal gëmatuma pokolaa dugaat ci waaw du nekkaat ci maa ngi ci lii li mu def ni maa ngi koy jéggalu pikinois yëpp baa en tant que pikinois yor baatu pikin maa ngi koy jéggalu waa pikin yëpp di ko wax mu góor góorlu dimbali yaayam dégg nga mu dimbali yaayam parce que yaayam ku sonn ci moom la dégg nga ku sonn ci moom la dégg nga man yaayam dama ko doon fekk ndànk-ndànk boobu nekkul ci biir kër gi am nga dégg nga jàkkay ndànk-ndànk biñ fa dëkkee boobu Pokola mu ngi nekk lu ndaw lu dëgg voilà mën a daal paate laa dem seeti Thiès prison bu Thiès Pathé dénk ma Pokola li mu wax li ñu waxante man ak moom moom laa jàpp nii ba tey sama sortie bi bu metti woon Pathé léegi léegi nii la coupé man wax nañ ba mu jeex sax waxuñu waxu Pokola kon am na loo xamante ne mu suñu diggante dégg nga billaay wallaay li ma daj si Pathé dajuma ko sax si Pokola li ma daj ci waa kër googu noonu parce que tamit man ñu ma bëgg lañu foofu laa bokk. kon tey su ma gisee tey suñu doom di def yenn yi man am naa droit génn wax ci dégg nga. tey ku xam tamit xam ne yemul ci Pikine rek. non non partout ñëpp ñu ngi lay bàyyi xel Ada Fass boo amee loo koy dollu ci conseil yi ginnaaw defaree woon nañ ko mais mujj nañ ko libéré loo koy conseil en tant que frère ak grand waaw ñoom maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit Abakara bi nga xamante ne tey mu ngi sonn comme Aba comme Pape Sarr ni mu mel ci Pokola Aba Abakara noonu la mel ci Ada Fass na xool ci Abakara tamit Abakara tey fi mu toll nii dëkk bi xam nañ ko bëgg naa Ada Fass nga xam ne tey Abakara damaa bëgg suy dox mu siggi te yaa ngi rusloo say supporter lii bu mu la dalati su dal def nga ko defaat ko defaat ko lii demee bu demee ba mel ni tayeef lañ koy wax kon ñu ngi lay ñaan nga góorgóorlu nga xam ne tey daa am loo nekk loo xamante ne tey yaa ngi ko boot muy drapeau Fass dama bëgg nga téye ko nga góorgóorlu bu baax a baax a baax dégg nga booy Ada booy bu baax la parce que toog nañu man ak moom suma booy la te booy bu baax billaahi wal kitaabi booy bu baax la waaw dégg nga na gën a delloowaat ci surtout paawam boobu noonu mu koy jàppale bu baax Père Koundung muy jàppale paa boobu bu baax parce que warul tàngal xolu paa bi xam nga na xool ci paa boobu parce que paa boobu day sonn ci moom di sonn ay supporteram xoolal ay xale yu ndaw yu ko topp ah am na ñeneen ñu ñu mën a topp foofu kii yee ko ëpp moo ko ëpp doole xam nga dàq koo bëre muy Serigne Ndiaye est-ce que lii Ada am Serigne Ndiaye am na ko waaw léegi nag yow soo gis nga loolu lu mel noonu say moromu mbëri ñoo nekk Fass Ada Fass góorgóorlu nga déglu say supporters déglu say encadrement toog dégg nga mbër du dem boîte mbër du dem baar waaw di ko tere mbër yëpp waxuma ci Ada Fass képp koo xamante ne tey yaa ngi dugg ci sport ru làmb foofu du fréquence foofu du millier. doo dégg mukk kii mooy dem millier ba tabax étage mbër bii moo fi tab xoolal mbër yi fii doon dugg si ay baar ak ay boîte fan la ñu mujjee ah gisoo fi ñu tabax fi zeng dégg nga daaju fi zeng seen kër si ay problème rek lañ lañ leen la ñuy di indi di sonal seen i bopp loolu laay dénk sama ñaari rakk yi ñu góor bu baax a baax a baax a baax di wax Sada man xasuma ko dam koy cadré ne ko yaa ngi def affaire u naa fekk affaire naa fekk man yabeewuma ko noonu sax bay toog ci Kumba Balde di wax su ma ñëwee ci Kumba am na yeneen yu ñuy wax dégg nga Kumba day ñëw sama kër su ma gisul sama kër yenn saa yi day woote ba sonn du ma jot mu ñëw seet si ma fii si yeneen la ñuy wax du dëgg Pokola daa fayeeku cent millions ba may taxaw foofu di ko man ku dul man Eumeu Sène sax du ma ko raayal raayal Eumeu Sène bu jegee yoon damay dal si kaw kawam yow xam nga loolu si man ah waxuma la Pokola muy Eumeu muy booy Niang mu laal ay jote naak diw képp ku ma jotel pikin danga ngaa draye yoon wala am loo ñu bëgg a def mar génn défendre loi pikin voilà loolu kese la voilà mais man duma ma doom dóor doom man xawma loolu ñoom ñëpp laa yemale nekk benn na dem xooli topp lalam yee mu dem jaay ji liggéey ko yang may dégg ka man dama ñafé nit ñi xamé ma may wax ci micro ba yalla def ma tëgg sama lamb denga, nga du mbindeef bu ma jappalé fi biir Pikine deeng nga man dama liggéey ñafé ba tëgg sama lamb fi ni dugguruuma ben promoteur nekuma ben suq promoteur bi man dama ñafé ba egg sama ba dagg suma licence di tëgg sama làmb jaamuwuma kenn yalwaanuma ben mbeur Pikine te ben mbeur amul ngay tok fi malay lay ci kenn du deug na xolaat bu baax limuy wax deng yak yàq baaxul digganteem ak Pokola man suma yon nek si keroog bi mu genné sortem bu bon bobu nonu waxuma ko si wow na waxuma ko si tooy na te keneen ku fi gennon du wax si Pokola parce que lan motax duma ci si wax dama gis toona yimu don doon daj Pokola mais nafiq baax su baaxul soy japp nafiq rek jappal boy bi parce que mu ngi def affaireu jaxasse te jaxasse baaxul soo xoolee legui léegi laa seetaan vidéo bi ha ah. motax nga bigma woy dama ne la ñewal ma wan ni ko na dem gisante kumba mu gën koo leeralal wax ji ndax man mustaxa toog ak kumba di ko wax kuy saada yow nga toog nekk Maroc Pokola nekk fii boobu man ah ci ay WhatsApp rek la ñuy déggante ah damaa sekk yow yooyu ah Aliou suma rak bu ko bu ko fekkoon léegi ci lal ba puubal fii la koy def léegi mu puub ah, ah. dégg nga suma rakk la saada suma rakk la tey am na lu ñu jot a jëflante man ak moom dégg nga am na lu ñuy jëflante man ak moom su ma nekkee nit ku bon moom xam na bu ma nekkee nit ku baax moom xam na loolu laa koy wax mu bàyyi lii maîtriser wu ko na ko bàyyi parce que saa yi su waxee toj-toj lay wax dégg nga loolu la koy xalaat li may wax mooy Pokola say nawle mbër ñoo fi nekk ñun ba tey ñu ngi sa ginnaaw duñ la bàyyi benn yoon ñu ngi sa ginnaaw di la jàppale di la taxaw di la ñaan nga góor góorgóorlu xam nga déglu sa grand frère yi dégg nga jéglu sa papa yi nga góorgóorlu bu baax a baax a baax nga xam ne man Pape Sarr lii may wax nii waxuma ko pour dara dam lay ñaax pour nga gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax